mais Mirgui mais Mbaye Diagne il se prend pour qui Mbaye Diagne doomu asulem la may doomu asulem international Mbaye Diagne may wax nit ñi naan ma non Mbaye Diagne centre formation mu ngi ko defee euh, Juventus après dem Chine mu jógee fa dem Turquie jógee fa dem ci naar yi moo fa jël xaw ma meilleur buteur xaw ma sama yoon nekku ci loolu mais Mbaye Diagne yow yaay kan Mbaye Diagne ubbi nga école euh, kii. oto euh, école euh, euh, safur la benn parking parking la may jaay ubbi mais mbir ki ma dem ci parking ba fekk fa xeetu oto yu nekk toutes les grandes marques ay oto haut de gamme oto classique oto boo xalaat boo duggee ci parkingu Mbaye Diagne fekk ko fa parking baa ngi aslem ci ponus bi ci wetu hôpital bi mais Mbaye Diagne doomu aslem la may doomu aslem ma ni naa woo Mbaye bu defee ma wax ko sama xalaat ci parking parce que dem naa man gis naa parking bi Sadio Mané mu dem fa gis naa parking bi ay célébrité yu bëri dem fa mais comme suñu fierté la ma ne naa woo Mbaye Diagne wax ko sama xalaat ci parking bi parce que gis naa ci parking bi xeetu oto bu nekk mbir ki ma woo Mbaye Diagne mbay ni ma dafa jàpp xaw ma mu ngi entraînement parce que bu ñëwee nekkul vacance day entraîné may naa ko bàyyi ba mu féex mbay pare ma yaakaar ni pare na ma ko mbay ni ma non dafa nekk ak la famille ak ses amis d'enfance xam nga moom fàttaliwul démb ma ne ko xam naa ne fàttaliwul moo tax nga ñëw ba HLM bi nga dëkk daal di fay tabax li nga xam mooy parking bu mag tabax fa ay immeuble di dimbali doomi HLM ak ay si HLM mbay ni ma naa ko may mu pare mu waat ko ma bàyyi mbay mu pare ma waat ko mbay ni ma non maa ngi ci parking bi xam nga damay waajal bi nga xam ne sa dimanche bii lañ koy def donc euh, xam nga xam nga parking bi may jaañ euh, créé euh, mooy King Kong automobile xam nga yooyu yëpp euh, bi ko defee King Kong automobile mbay ak may expliqué ne ma King Kong automobile day def li nga xam ne moom mooy location day jaay mais day def ay transport urbain ak euh, euh, yooyu yëpp wax na ma ko oto yi loué gam yóbbu ñëw bu mbay ma ne ko léegi mbay boo paree kon mbay pare mais mbir lan moo aay lan ci mbay jaañ ma ne ko sama xalaat man gis naa ci parking bi xeetu oto bu nekk mais gisuma fi Renault 19 Mbaye raccroché moom est-ce que Mbaye war na ma raccroché woon Thank you.